daf leen teree nelaw xarum tabaski te xarum tabaski tamit xar yépp xaru yàlla waaye xaru tabaski moo gënal yàlla ndax njariñ yi may bëgg a joxe ci biir xaru tabaski ci xaru tabaski rek ko mën a am mënoo ko amee mënoo ko am ci xaru màggal mënoo ko am ci xaru ngénte mënoo ko am ci xaru xaru xaru tabaski rek nga ko mën a amee ndax sunu maam Ibrahima sunu borom ni mu barkeelee ci digganteem Ismaayila doomam jooju ba jële am xar aljana bi ñu rendi Ismaayila sunu borom wax Jibril na rocc Ismaayila dugal fa xar ma ba mu rendee jàpp ni doom ji la rendi mu xool muy am xar kon xar moomu jóge aljana tax na xarum tabaski du yam ak meneen xar léegi nag ñi nga xam ni dañoo jub événement bi événement boo mën a jub moo xam màggal la moo xam gàmm la moo xam sax sa xew bopp la tabaski wala muy sa céet wala sa ngénte nga jub ko muy xewwu rëy te nga bëgg li nga ci yéene lépp ci taraanga yàlla defal la ko balaa booba na mhm. def secret bi may bëgg a wax insha allahu rabbi ci kàttanu yàlla balaa bis baa ñëw suñu borom dina ko defal lu kawe ci li mu doon wut lépp ndax am na ci kilifa yoo xam ni bu màggal jub see mu leer leen dañuy bari màgg dañuy bari gan suñ ko defee balaa màggal ga ay gileem sax dañ koy yeew taraanga yëpp ay baawaat saawaat boo jubee xewu rëy kon yow mi jub tabaski bi soo jullee suba ba noppi dangay jël turu yàlla wow di yaa xakiimu yaa xakiimu mooy firi aji xarañ ji yaa xakiimu mooy firi aji xarañ ji sunu boroom rekk moo xarañ xarañ mooy loo xam ne yaakaar nga ni munu fee nekk sunu boroom nekkal ka fi moo tax yaa xakimu boo ko werdee soixante-dix-huit fois li des ci événement bi ak neuf li laa fi xoroy si ginnaaw boo jullee suba ba noppi nga ñaan li nga bëgg lépp balaa booba incha allah sunu borom dina la ko yombal di ko am am gaaw moo xam xara moo xam ay piis la moo xam lu mën a doon rek mm. kon juróom-ñeenti li laa fi xoroy si ak 78 yaa xakimu soo koy def boo jubee xew sunu borom dana la yombalal li nga ci yéene lépp. bésu tabaski nii nga koy tàmbalee balaa tabaskee ñëw. ah waaw ki bëgg am am xar amagu ko wala mu bëgg ci financement boo xam ne matagul bu jullee suba rek day weer yaa xakimu 78 fois ak 9 li laay fi xoree si ba saar yu jeex mu ñaan yàlla li mu bëgg sunu borom defal ko ko. boobu mooy bi ci njëkk mm-hmm. ci kii yooyu jafe yow mi nga xam nit am xar dong la ñor te jafe la da jënd paaka bu wees tàq bu musta dagg xam nga paaka am na ñaari wet yu tàppandaal wet gu nekk nga bind ci yaa xakiimu benn yoon paaka boobu nga denc ko fu ko kenn dul gis insha allahu rabbi ci kàttanu yàlla bisu rendi ba paaka boobu dana rendi xar li nuy bañ nag mooy nga wor maanaam wor mooy nga am xar rendee ko beneen paaka yow na nga xam ni paaka bi nga bind yaa xakki mu denc ko moo indi xar ma na nga ko rendee paaka boobu soo amee xaru tabaski ba noppi bu mm. fekkee journaliste nga di wax ci mbooloo wala ngay ab jàngkat wala ngay ab woykat wala ngay waaraatekat sax te bëgg li ngay wax di saf nit ñi ba mel ni xorom ciw ñam loo wax mu neex nit ñi suñu rendee xaru tabaski ba noppi da ngay dagg làmmiñ wa nga bind xabasa wa tawale an jaahum lahme boo demee ci taalibe yi sax ñi jàng mën nañ la koo bindal soo ko bindee ba mu jeex nga def ci tuuti ndox muy saafara nga togg ko làmmiñu xar ma boo noppee nga jëfandikoo ko yow rek suñ boroom danaa la defal kàddu goo wax dana mel ni xorom ci wuñam ci biir nit ñi xabasa watawale bu fekkee dangaa néew kàttan dama gaa yi déglu bu baax ndax secret bii ci néew kàttan at ba at la ko nit mën a am ci ngóora jële nañ fu wér ni lu mu defalul nit ki ci ngóora dana jafe beneen garab defal ko ko ci ngóora te ci xaru tabaski la nekk secret ngóor a dëgg ci xaru tabaski la nekk su nu rendee xaru tabaski ba fees ko sàkkaras xar ma ngay dagg nga togge ko ndox ak xorom ba mu ñor nga naan ñeex mi sànni la ca des loolu secret la boo xamante ne ku ko def nag ma ñaanaan nga xool sa nga nga xoolaat sa bopp ba nga ko defegul ak ba nga ko defee wuute gi ci bu nu rendee xaru tabaski ba noppi nag daggal sa karaw nga toggee ko ndox ak xorom nga naan ndox ma sànni la ca des fa muy soyee waaw bu fekkee ab sëfoor nga bu fekkee ab sëfoor nga xam nga xaru tabaski yàlla moo dagana léppam lépp ma dagan mm-hmm. bu fekkee ab sëfoor nga te nga bañ accident bëggoo dara dal ci sa oto bëggoo sa oto dal ci kaw dara bu nu rendee xaru tabaski ba noppi ba fees ko daggal der ca der ba nga bind aayatul kursu yi nga ëwee ko deru xaru tabaski deru xar bi ngay ëwee aayatul kursu bi nga takk ko ci vana oto bi oto bi du dal ci dara dara du dal ci oto bi bu bu fekkee da nga am entreprise nga ban nga bañ sàcc dugg fa da nga am entreprise bañ sàcc dugg fa wala nga am kër bañ sàcc dugg fa wala nga am place bañ sàcc dugg fa bu nu rendee xaru tabaski ba noppi ba fees ko dangay ngay dagg béjjën ba nga bind juróom-ñaari faatixatul kitaab muy alhamdulilahi rabbil bi ba mu jeex waaw nga soq ci béjjënu xar mi fépp foo ko takk saytaane du fa dugg sàcc du fa dugg rab du fa dugg te dana am barke bu fekkee dangaa bañ a dugg kaso loolu moom siiw na kilifa yu bari dañ koy def léeg nga dem ci këru kilifa tabaski jot ñu naan mayal kii ci res yi may ko ci res yi ku ne ñu bëgg nga mus ci ndax resu xaru tabaski soo ci bindee mut xamataani ñu ngi ci suuratu rahmaan alamal quraan mhm. boo daggee res yi nga bind ci mut xamataani nga lakk ko ku ci ñam boroom xam-xam yépp maase nañ wax ni kooku du dugg kaso ci ak dundam waaw fekkee bind nga ci mut xamataani bu fekkee sunu borom mën na koo dimbali. waaw ci dugg koso. macha allah bu fekkee liggéey da ngaa yëg ni wala nga sentir ne xañ na liggéey dafa nekk ci sa yaram nga ni est-ce que man liggéey nekkul ci sama yaram wala nga yëg dara ci sa yaram bu nu rendee xaru tabaski ba fees ko sébirin ma sébirin ma mooy mbaq xar ma la ca nett réesagul nga sàkk ci boole kook ndox nga sangoo ko. ah déedéet <laughs> ko laal. <laughs> su ko defee lépp lu ne woon ci sa yaram ci liggéey day daal di toj loolu da koy toj. li nekk ci mbax. waaw da nga sàkk rek nga def ko ci ndox sangoo ko mais faju la. waaye salte la. après nga nga sanguwaat tuuti rek nga ciy sàkk. <laughs> waaw bu fekkee. bu fekkee da nga am soxna soo xamante na dafa dem. gaa yi seen so gaa yi seen soxna yi fay laay wax. Ah, soxna si dëgër bopp ku ne dem waxtaan yi mu ne du ñëwaat ay mbokkam téye ko ngay réccu ngay réccu li tax soxna si dem buum gu nu yeewee xaru tabaski. Ah. man soo ma ko indilee ma oñ ci soxna si ba mu ñëwaat xam naa secret bi nag day gudd te bi daa daa jot mm. waaye bungu nu yeewe xaru tabaski rek njariñ la day xëcc loolu bu nu rendee xaru tabaski rek fi may terminer mooy bu ñu ko rendee ba muy wéq suuf soosu di tëb suuf soosu maa ngi ciy liggéey bayra njaay boo xamante ne maanaam njaay moo ko def ni xorong dong di def ci seen kër yi maanaam noonu la ñuy def ci place boobu maanaam xaru tabaski soxna Aysa <laughs> léppam njariñ la li may wax boroom xam yi may dégg Euh, xam nañ ko am na ñoo xam nag bu ñu xamee xam-xam duñ ko wax waaye xam xam wax ko ak am alal di ci dimbalee ñooyam nit ki bu amee alal di ci dimbalee suñu borom day yokk alal ji nit ki bu amee xam di ci dimbalee suñu borom subhaanahu wa taala day yokk xam-xamam kon képp koo xam ne rek dese na ci am ay leeral bu ma wooyee ci 78 530 69 81 incha allah rabbi dinañ ko leeral wala mu dugg ci 7TV dugg ci seen kii bi nga jëlee yi nag ku koy def sañse yi macha waaw sañse yi may sañse yaakaar naa mosuma koo tudd suñ xaadim maa ngi koy jégalu ndax xel day fat moom xaadim couture xaadim Sénégal couture waaw ah, nekk yëmbal yére bu ma sol moom moo ko ñaw macha allah muy ku mën a ñaw bu dee weer yi may takk tamit ah. kun naan ah, baax yaay nekk ca géejawaay tournal marché bees moo moo ne ma heure boo bëggee ay weer rek ñëwal nga tànn yu la neex di jaay ay weer yu rafet maa ngi koy ziare baax baax yaay. rapidement une ah. minute rek. mais li nga wax ne euh, lanate la sax que que que. Euh, lu nga xamante ne moom la ñuy utiliser xar yi par exemple soo ko luwee nga sa nga naan ko. Hmm. Ah, ah awrawu xar yi waaw euh, waaw nga baxal baxal ko après nga naan ko médicalement dafa am ñoo xamante ne dañ ne. boo kiiyee sa ngóor dafay kii walla da nga ko expérimenté ba gis ci dara wala. waaw loolu moom xam-xam la boo xam ni bari na kilifa yoo xamante ne. dañuy am sax dañuy dox ci sañ-sañ. dañuy am lu tolloog ay ñeent fukki soxna ndax am na ñuy doxee sañ-sañ mais. ñeent fukki soxna waaw am na ñoom dañuy am ñeent fukki soxna am ñoom dañuy ay ñaar fukki soxna. ku gis bëgg ko dañ koy takk ndax ñoom dañuy dox ci sañ-sañ xañ na mm-hmm. loolu bari na Sénégal ci kilifa yi. léegi nag am na ci am naa ci ay firna yu leer am na ci ñoom dañ koy jëfandikoo te ñëpp lan jabootal te loolu la jëfandikoo. kon am na solo benn question mm-hmm. par exemple wàllum buum bi. Mm-hmm. am na ku ma laajte nee na ndax buum bi tey bu nekkee sa jëkkër yaak moom dafa xaw a ñagas tuut ndax mën nga ko def en tant que jigéen. waaw mën nañ leen a boole ndax buum googu dafa am liggéey boo xamante ne buñ ko ci liggéeyee dañuy boole loolu yeew ko ci. jërëjëf dajale leen. waaw bu ko defee loolu. ci xaru tabaski leen koy liggéeyee. merci ay Aïcha bu fekkee am na rek lu leen ci rëcc dugg leen ci li nga xamante ni moo di la page Facebook de la 7TV euh, ngeen seetaanaat ko bu ko defee ngeen daal di koy euh, Alassane daal di daal di daal di daal di noté yi nga xamante rëcc nañ leen. merci beaucoup ñu jaajëfal la ba mercredi prochain incha allah. waa kay xanaa di rafetlu émission bi ak ñuy déglu di leen jaajëfal. ñoom alsaan techniciens yi ñoom ñëpp tamit maa ngi leen di jaajëfal di ñaan suñu borom dooli leen te yokku leen te tabaski bi ñu dugg ci ci alhamdulilahi rabil alamin ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabil alamin te sunu borom defal ñu ñuy tabaski ñuy dem dem ci jàmm amiin dikkaat ci jàmm sunu borom defal ñu yool ndax tabaski kat jaamu yàlla la mm. jërëjëf waaw kay ñu ngi jé ñu ngi jaajëfal ñëpp. merci beaucoup Keyna. alors Aïcha merci beaucoup j' que aussi astuce bi ma leen indiloon euh, dina leen neex et que di wax Alassane na ko utiliser rek donc di leen jox di daje incha allah bu demain euh, ma indiwaat yeneen astuce incha allah. asi. Euh, à demain Aïcha. incha allah Pape. incha allah merci. alors Alassane permets-moi juste euh, de faire un coucou matinal ñu ngi ñuy seetaan depuis Ouest Foire waa Serendon Fitness mes amis du soir euh, coach Mohamed je te fais un coucou matinal coach Tidiane coach Malik qui doit faire justement son show ce soir on se on se retrouve justement euh, ce soir jaajëfal leen yéen ñëpp maa leen invité ñu dem Serendon Fitness def fitness show merci beaucoup Alassane à demain inchallah